Salam yéen ñi nga xam ne Allo Dakar TV man dalu Dakar ma leen di nuyu ci fi may tassé yéene kaay Sud Quotidien Sud Quotidien ñu def euh, alerte rouge croissance démographique feu de brousse climatique coupeur de bois bo bëggee xam li nga xamné mo nek ci biir jëlal li nga xamné moy mooy Sud Quotidien suma ma jógee Sud Quotidien damay dem ci yéene kaay yi Bougane la tribune ñu def euh, prochain gouvernement de Macky changement dans la constitution ou rupture instant bi ñu toll ni Sénégal sen problème ñom ñëpp xam nga moy lan président Macky Sall kan ak kan lay changer nit ñi fi mu toll ni dañoo seen bop yi ñoo jaxaso gouvernement bi ñepp ngi xaar li nga xamni moy mooy prochain gouvernement bi waye xamna nak président Macky Sall dina ko tek ci yoon suma ma ci li nga xamni moy euh, la tribune damay dem ci Walf Walf Quotidien Walf Quotidien ñu def euh, retrouvaille euh, socialiste toute la vérité sur l'appel de Tanor au exclu Manam ñi nga xamni ñoy socialiste yi seen dajawat bi nga xamante Tanor Dieng mo koy woté hein ah, fi mu toll nii ni Ousmane Tanor Dieng ma nga ca suma ma ci Walf Quotidien damay da dem ci nga le soleil le soleil ñu da def 6 euh, mesures contre les incendies waaw waaw toll yi nga xamni moy xew ci marché yi ngor gi na ci ay dogal mi ngi xam li nga le soleil le soleil damay da dem euh, euh, Sud Quotidien le Quotidien le Quotidien a un acte si terrible hein ah, nous

en Italie, un Sénégalais met le feu au bus avec 51 élèves au bord Xamni ki ni kii wérul de 51 xale yu nek ci bus nek ci Italie Mom nee na dafa bëggoon dénoncé daal xeex ak ñi nga xam ne politique Italie yi ba tax mu tal bus ba Waye na dem rek mom Pronto dina ko digaal ak Italie Li ñaawna ñaaw na ma jógee ci lool damay da dem ñi nga xamni moy euh, l'observateur ñu def euh, cérémonie de la de prestation de serment Macky au centre des expositions fi mu toll ni le 2 le 2 li nga xamante ni président Macky Sall la war a waat waat boobu muy waat mu doon nii Sénégal ak li ko wër ñu ngi koy xaar ah yaakaar naa ni euh, président Macky Sall mi ngi noonu jënd la li nga xam ne mooy l'observateur su ma jógee ci l'observateur damay daal dem ci Libération CRBC sur une autoroute de cadeau ah une autoroute de cadeau waaw waaw fi mu ngi noonu gannaaw autoroute illaa Touba ak tali yi nga xam ne bàyyi amul Sall xàll na ko yaakaar naa ni loolu moom lu am solo la xoolal libération yéen a kaay su ma jógee ci libération dem ca Dakar Times Dakar Times ñu daal def guerre entre l' armée et la douane la ilaha illallah ma yaakaar armée bi mooy douane wala douane mooy armée kon daal ñoom seen biir ñooy dóorante ay kurpañ waxuma ko de Dakar Times sama ko wax su ma jógee Dakar Times damay daal dem ci li nga xamante ni mooy euh, la source ñu def la drague des Yankees Youssou Touré tir au canon mi ngi noonu maanaam Youssou Touré mi nga xamante ni. Euh, mon ex situation des transhumances ah mom dal nena na Youssou Touré dal moom fi mu nena euh Khalifa Sall ak Karim Wade situation des transhumance prochain gouvernement waxuma ko la source ko wax suma ma ci la source damay dem ci. Euh, mooy les échos les échos ñu def une mafia du sexe démantelée à Nord Foire la ilaha illallah waji dal ay kër la yor diggante Almadi Nord Foire ak parcelle chambre 10000 mille lu ngeen ci xamul moy amna ci ay xalé yu jigéen yu xamné ay élèves lañ waye dañoo bokkon ci ñi nga xamante dañ doon jaaxaan di fayeeku subhanallah boko ko xam xoolal li nga xam moy les échos suma jëgé ci les échos demee daa dem ci critique critique ñu daal def zoom sur un paparazzi au cœur de la république la ilaha illallah ki nga xamanteni ni daal mooy Lionel Mandexi mom fexé na ba filtré ca palais ba archive ya nga xamanteni mo amone wa palais ba nag xanaa amul ay garde du corps wala gendarmerie mom nan la meuna def ba ba romb dugg ci bir bay génn archive yi ah mi ngi nii mi ngi nii Lionel Mendici a infiltré les archives du palais mi ngi ci li nga xamne moy euh, critique ay way xolaat len way suma vous ci critique dem suñu 21 mars 1994 21 mars 2019 25e 25e anniversaire nga mi nga ja 25e anniversaire am loolu la suñu lamb woné mala joge fofu da dem ah, ci stade ah, la MSN 3 ah, nga au cœur ouvert le Sénégal doit s'imposer à Thiès le Real Madrid un club un club de rêve le Real Madrid un club de rêve ñu la di wane ki nga xamanteni Sadio Mané Sadio Mané doomu sénégalais bi doomu sor bi ma nga don yéré kay mbokk Sénégal benn politicien bu ñu wax mort, Ichar responsable Benno bokku Yaakaar ci Grand Dakar ne bés bu déggatee ñuy wax ci Amadou Ba dara wala ku laalati ministre économie et finance wala ku xolati Amadou Ba Mor Sarr dina la def ni ñuy def mburu ci biir taal waxuma ko de moo la ko wax baay baay ba suba